sëñ Yane Thiam. Euh, tey euh, ñëwoon nga ci màggal gi Serigne Touba Cheikhoul Khadim 18 safar gi ñu pare nii cérémonie officielle euh, lan nga yëg tey sa yaram ni maanaam ni ci tarixa yi dajoo tey jii maanaam ñi ku ci nekk muy muy mu di murid laa ñoom ñëpp tey ñu nekk benn tey ñëw ci bisu Serigne Touba Cheikhoul Khadim bi ana noo ko jàngate. jërëjëfati alhamdulilah muy ñetti yoon wala lu ko ëpp. alhamdulillah sunu borom dafa ne nanu ko sant waaye njëriñ li nunu sunu borom tax ne nanu ko sant njëriñ li ci ne jëmul ci moom ci nun la ñun jaam yi la jëm ndax boo ne alhamdulillah noo ngi sant te yàlla mu nekkoon danaa la fay man danaa la dolli li tax nga sant ma mbaax gi nga am ba tax nga sant ma danaa la ko dolli te man nag tey fi ma toog li tax ma sant yàlla mooy yàlla mi dogal ci moo bind lépp moo moom lépp moo xam lépp moo nekk fu ne moom moo dogal bésu tey bii di fukki fan ak juróom ñett ci weer wi ñuy tuddee safaril abrak ni kuy arab yi di tuddee nay safar weeru safar bu barkeel wi ba ko arab di tuddee weeru safar bu barkeel wi booba lii lépp ñëwagul bu jëkk ba àdduna di màgg bu ñuy màggal tey walla boog nuy fàttaliku jëmukaay ba taxoon xaadimul Moustapha nangu ne dañ koy sànki moom bañ ko ne dañ lay sànki lu tax ñoom ña waxoon dañu noon ndaxte dañoo ragal li mu amee te ñun ñu dul jullit ñu ragal ko ñun ñu dul jullit ñu foog ne loole daf ñu yàqal sunu tey ak sunu ëllëg muy lislaam te kii nu giskat kat mel na na li nu ragal loole moo ko tànnal boppam pour mu nekk ab sagam li nu ragal mooy lislaam bi lislaam bi nag moo tànnal boppam xaadimul Moustapha ngir mu dëgëral ko waaye rek alhamdulilah yaakaar yàlla dafa jafe bëgg yàlla dafa jafe waaye wóolu yàlla nag ki fi mu la féete moo gën a jafe nga foog nga jàpp rek ne yàlla mën na laa musal ci lu ne ba ci pexem ay noon loolee jafe na waaye ndek yoo yàlla subhaanahu wa taala xamal na xaadimul Moustapha ne ko yaay suma xarit yaay suma jaam bi mu wóolu fi ma la féete kon nag danaa la woon tey jii fi ma la féete fépp mën naa fa mën naa la faa féete waxal dañ lay jàpp demal te wóolu wala ci biir dem bi nag laa lay joxe sag may may googee nag moo fës tey ci bésu tey bii amul kenn koy gis bés bii boo ñëwee Touba fi ñëwul da ko gis ndax bés bi ci bopp mooy imposé boppam ci fu ne mm-hmm. moo lay imposé boppam nga gis ko mu neex la nga yaakaar ko même su fekkee ne sax yow mosuloo xam lan mooy mouridisme ak kan mooy xaadimul Moustapha waaye cey boo gisee màggal gi faw da nga xam ne lii du pexe doomu aadama moo ko mën a def da nga xam ne lii coobare yàlla kott la te coobare yàlla nag moom ku mu neex mu war la ku mu neexulit mu war la màggal gi coobare borom li ci gën a am solo tey ci réew mi mooy safarul abrak bii yoru safar wii cey boo toogee boo fi ñëwee wala sax soo fi ñëwal wala ñu ñëwal la fi danga nga gis mboolem kalifa yi diine yi nga xam ne tey ñoom la yàlla dénk diineem ji nañ ko ko doxalal ci biir réew mi ak feneen fu dul réew mi si ngeen ni sénégalais barkeel barkeel fépp rek fépp rek boroom xam-xamu sénégal yi mbaaxuk sénégal gi mbaax gi mbaax gi yàlla tàllal fii foo dem ci afrique foo dem ci àdduna si danga da nga ko fa fekk da nga ko fa gis te da nga ko fa yëg ndax dana la jëriñ ba nga yëg ko fa te même soo fa bokkul kon màggal gi tey fi ngay gisee ku ne fa ngay fi ngay gisee lu ne ku ne ci biir réew mi ak ci diir fi ngay gisee ku ne ci biir ci biir ci biir euh, réewum lislaam fii itam ngay ngay ngay ngay bëggee ku ne ndax li ngeen dajee fii ndax fa tabaarakallaahu lii waxuma la benn benn benn kilifa diine ci lislaam ci Sénégal waxuma la benn euh, taalu bi ci lislaam waaye waxuma la sax nag cey ci biir Afrique ak itam nag ci réewu arab yi nga xam ne jàpp nañu ne ñoom tey lislaam bi ñi koy gën a mën a ak ñi ko gën a mën a xeexal ak ñi ko gë ak ñii tax ñëpp neex ñëpp lislaam bi neex leen bokk na ci bis bu ni mel kon nag ba mbokk mi nun ñëpp nun santati borom rawatina nun Sénégal laa wax de manal kilifa yi diini koo koo fi gis rek gis ko fi koo fi xool rek gis nga ka xel dem ci gis nga ko fi ndax boo ko fi gisul da fi gis jëfam da fi gis maninam da nga fi gis bëgg-bëggam te koo gis bëgg-bëggam rek gis nga ko te mbooleem kilifa yi diine yi dund ak yi dee yi gaañu yi dem ci seen borom ñoom ñëpp seen bëgg-bëgg moo doonoon àndandoo gi moo goonoon moo doonoon bëggante gi moo doonoon wóoluwante gi moo goo doonoon àndandoo jëf ngir yàlla ci yoonu yàlla moo tax xaarimal Moustapha li ñuy wax murid murid la ma la ma koy tekkee man ci wàlla mooy ku bëgg maa ngi nii jëm ci sama borom ku bëgg na ñëw nu ànd. Euh, gis nañ ni thème ren bi sëñ Touba sëñ sëñ Moustapha Bachir yàlla yàggal ko fi yàggal mu am xam nañ ne thème ren bi mooy aadaabul mardir euh, ñu gërëm gis nañ daaw it euh, institut yi nga xamante ni samp na fi université bi ndax li may laaj mooy. xam-xam naa dem sans teggin wala teggin mën naa dem sans xam-xam. dara mënu cee dem bàyyi morom ma loolu mooy alquranul karim ma azamal xuluq mahma kaanatul xuluq waaye nag ma a ma azama islaam jikku yëpp amul amuñu morom jikku daal bu dee jikku ju baax rek ak fu mu mën a génneeg fu mu mën a rek amul morom waaye cey jikkoy muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te nag jikko yu màgg yépp nit ñu màgg ñi ñooy tax jikko yu rafet wala jikko yu rafet yi ñooy tax nit ñi màgg màgg tey jii ki nu fi daje te mu wuutu fi xaadimul Moustapha muy sëriñ Muntaqa Bachiru xaadimul Moustapha sëriñ Muntaqa Bachiru xaadimul Moustapha ki ku fi ki ku doon tey fii wax naa bi fi sëriñ sëriñ Sidi maxtar Mbàkke jógee yàlla na buur yàlla yokk leeram parce que bii jaam nee naa ko nee naa àdduna keroog bu fekkee ne sëriñ Sidi Maxtaar liggéeyam bu rëy bi mu def ci diine muy jàkk ju ne mu ko tabax muy jumaa ju ne muy miskin mu ne waxuma laa nag ci koor ak ci tamxarit ak ci tabaski alal ya muy jox jaami yàlla yi ak di dem nag waxtu wu ne muy dem ndakaaru di jox jaami yàlla yi ñuy aji màkk moo leen mooy jënd billet yi mooy réservé moo leen dugg bu ñu dugg ci avion yi ñu ñëw waaye mos laa gis lu gën a màggee loolu jumaa yeeg miskin yàlla yeeg euh, mbaaxu yàlla yëpp ngay tabax rek waaye dama ne lii lii lii yàlla gën a fayee sëñ Sidi maxtar Mbàkke li ko yàlla gën a fayee mooy li ko yàlla mayee ku ñuy wax Muntaxa Bachiru Mbàkke wuutu ko ci toogaay bi ku ni mel ku ni mel ku mu wuutu àdduna yàlla fay na la te te demagoo yàlla fay na la te demagoo seetal rek bi mu bi mu toogee rek li li gën a yéeme ci ci surtout xaadimul ku ñëw rek réew mi benn yaa yàgg na mën a liggéey yàgg na rafet liggéey yàgg na baax nooy liggéeyee waaye seetal rek université bii nga xam ne dafa ñëw rek ne ko cëpp waaye moom yàlla daf ko def mu nekk baynal fadlayni moom seen Muntaxa yàlla daf ko may mu nekk baynal fadlayni yi nga xam ne moo mujj ci liggéeyub Sëriñ Sidi Moxtaar muy muy Masaalikul naan ak yi nga xam ne moom la sëñ Muntaxa tàmbali muy jumaa ju màgg joojee tey nga xam ne bu sottee àdduna gën a waaru ci diggante ñaar yi Muntaxa nekk fi yàlla may ko ko yal na yàlla yàlla ko fi buur yàlla yàggal te yàgg koo jox ndam te yàgg jox jullit yëpp ndamul ku baax ku ni mel bi xormatu Seydi Lu Jóot waala mi saw ma laaj la ci Masaalikul Jinaan gis ni euh, président euh, Ablaye Wade ak président Macky Sall euh, muy Euh, ñu bëggoon na ci laaj yow naka nga gisee lu mel noonu encore en plus tamit ñu gis ni euh, euh, suñu mbokk tijaan yi tamit ñëw nañ fa suñu mbokk chrétien yi tamit ubbi buntu jàng bi ne képp ku ci espace bi comme ni mu occupé noonu ñoom ubbi nañ seen bunt bu gën a yàqu yàlla bu la miséré jox ndam daf lay liggéeyloo waaye itam ki neex a jox ndam mooy ki rafet nu muy liggéeyee ki rafet nu muy àndandoo ak ñi muy liggéeyandool ndool ñi nu muy àndandoo ci ay bokkam yu mu bokkal daara dama ne loo gis ci àdduna bu la ko yàlla na ministre jox yàlla daf cay daf cay wax rek ci jëf ji ne lii de man yaa yaa ko lii day man maa koy mën a dogal waaye nag maa tey jaarale ko ci yow ndax ndax ni nga mel kon Abdoulaye Wade kenn sikkul ci ne bàyyi fi ci réew mi loo xam ne dana fàttaliku ne ni kii de baax na kii de liggéey na fi Macky Sall kenn sikkul ci ne xelal la boo xam ne Abdoulaye Wade mooy bàyyam dëgg la waaye bàyyi ju mat doom la moom itam nag mu tàmbali fee bàyyi nag loo xam ne àdduna dootu ko fàtte ñii nag ñoom ñaar yàlla moo bëggal ndam Muntaqa Bachiru Muntaqa tur wi dafa yéeme muntaxa mooy li ñu aw sellit li li ñu tànnaat tànn tànnaat ko ba mu set wecc muy muntaxa tànneefu tànneef tànneefu tànneef nag Bachir loole nag day bégal day bégle ci àdduna ak àllaaxira mooy Bachir te mooy bàyyi ja dama ne kon bu ko jagleelee lu ni mel juboo juboo goo xam ne jàmmi réew mi la yaakaaru sàmm sàmm réew mi la sàmm am am réew mi la delloo si xel yi la kooke ma ne mun sëñ Muntaxa mérité na euh, lu ni mel mu sooke ko wala yàlla jaarale ko ci moom ba mu réyee nii ma ni sara jëriñ senegal gépp waaw beneen bi beneen bi ci desoon beneen question bi mooy dañu gis ni jàngu bi waaw mbokk tijaan yi def nañ lu rafet loo xam ne dama ne Sénégal diine bi yëpp benn loolu ngay sax sëriñ mhm. Mbàkke ku yàlla ni sëriñ jox euh, euh, euh, wune nuutu ndam danga koy am rek seetal rek ci lii nga xam ne am na ci ji naan ne naa la ji naan mu ngi noonu moo mujj ci liggéeyu sëriñ Sidi Maxtaar waaye nag ki ko ki ko inauguré mooy sëñ Muntaxa mooy ku yàlla defal na ko te ndam waaye dama wax nag ne euh, lii xew ci Masaalikul Jinaan ci jubóog ñaari kilifa yii ma ne jàmmi réew mi la ndamul réew mi la taarug réew mi la waaye itam lépp ndam lépp nag sagguk réew mi la adduna sëpp danañ ci waaroo adduna sëpp danañ ci gën a nawee Sénégal adduna sëpp itam danañ a gën a wax ne ah kii de dafa mel ni yàlla moo ko yónni rek ngir mu gën a jubbanti nag ndëng-ndëng si fi xawoon a am euh, jubbanti ko ba mu ne kocc ba doxinu doxinu peuple sénégalais mën a jubbati kocc du sugg-sugg presse ku xam presse bi itam nag ay nit a ko yore te xam nga ne nit am na ñu ci am na ci ñu baax am na ci ñu tane am na ci ñoo xam ne ñi xëy na sax ñu bon lañ leen di mën a tuddee kon nit fu mu mën a nekk rek am na fa ko fa gën am na fa ko fa digg doomu am na fa koo xam ne kii wax dëgg yàlla li mu doon ci li mu doon lu mu rafet rafet eh, eh, da boo ko xoolee rek moom tey niroog ku yàq kon mën na am yéen presse ku jóg ba di leen def dara imma ñàkk xam la moo tax mu def ko imma ñàkk xam njëriñul presse ñàkk xam rolu presse ñàkk xam li nga xam ne moom la presse war a jëriñ ci li nuy def ñun ci li àdduna di def presse moom àdduna bañ nañ àdduna si si yeewu bañ nañ ko ba ne mooy quatrième pouvoir man sax man sax max dëgg yàlla tuuti kon ma ne mooy deuxième pouvoir ndax presse su jaaree na mu war a jaaree te li ci ëpp ma ngi jaar ni mu war a jaaree ndax lu rafet ñu feeñal lu bon ñu feeñal ndax nga moytu lu rafet ñu feeñal ndax nga ndax nga topp kuy ku dëng nga feeñal ndax mu jubbantiku ku ku jub nga feeñal ndax mu nit ñi di roy ci moom dama ne presse mënul ñàkk. waaye képp koo xam ne kii ma ngi leen di ma ngi leen di gàllankoor ci seen liggéey wax dëgg yàlla loolu warul waaye presse bi itam fu mu toll war naa xam ne moo modèle rek la war a doon jërëjëf.